franc-maçonnerie réewum senegal mii day xëy na mën na am sama gëstu jëmu ci waaye gisaguma fii ci réew mi ku ci ëndeegum lu ñu mën a sukkandiku te ñun dey jullit ñi sama gis-gis mooy diine ji nga xam ni moom lañu yàlla yónni ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa li ñu ci war ci jàngale ko yeete ci gindi ci ay nit dimbalante ci defe naa ne am nañ ci mission bu doy sëkk ak barke boo xam ne bii yaakaar naa ne bu ñu ko defoon du ñu a jotoog di lijjanti fu keneen nekk ak keneen kuy leneen donte da ngay jàpp ne xëy na franc yooyu say noonu lañ di xeex diine ji walla wa nga xam ne moom nga war a taxawee yow ngir nit ñi yeewu xam seen diine xam alxuraan xam wax yonent bi xam njëkk boo ko defoon mën naa am keneen du jot ci ñoom ba di dugal ci seen bopp yi lu méngoowul ak li suñu boroom santaane woon franc nee na dafa ragal moom ci jamono ji ñu toll ndax dégg na ne ay nit wax nañu ni mi ngi ci biir réew mi mi ngi sax ci biir kër diine yi mi ngi ci biir jàkka yi moom aki góor jigéen ndax na nee ñu ñoom ñaar soriyowuñu ñi indi wax yooyu ñi ma ci dégg bokk man gisaguma kenn ku ma indil firnde joo xam ne ji lii kenn mënu koo miim kenn mënu koo randal li ñuy wax daal mooy ñi ngi ci biir kër diine yi ñi ngi nekk ay imaam muy ay framason aki góor jigéen waaye kenn ku ci indi benn preuve amul kenn am na day ku ci mës tudd ay tur li tax preuve du yomb nag mooy loolu ñuy tudde framason maçon dafa bokk ci li ñuy wax société secrète man def naa ci ay gëstu yu yàgg ba jàngoon ci benn téere boo xam ne bii ki ko bind mi ngi tudd Alexandre Adler les sociétés secrètes et leur pouvoir au vingtième siècle téere ba deux cent vingt deux pages la ku ko bëgg am xam nga ni ngay def ba am ko société nag bu tuddee secrète la yombatul nit di xam ci moom lu bari ndax nun ñii rek ñu ngi dund ci suñu biir kër yi loo xam ne yaakaar naa ne yomb taxam waxumalaat laa loo xam ne lii moom ultra secret la toll wala nga naan hermétique société secrète yooyu am na ci fii ñu toll ni tembe jege ñetti téeméer yoo xam ne ñi ngi dund fi ñu toll ci ci jamono ji bokkul nag ak yi nga xam dañoo fayoon Skull and Bones Main Noire ordre hermétique ordre du temple de l'ordre de l'aube dorée Homies The Conspiracy Illuminati yooyu ngeen di dégg États-Unis kon yaakaar naa ne loolu mooy li ci gën a tuuti asaka ca la asaka la ci Louis Amad bind na ci benn poème l'instant précis yaakaar naa ne loolu it bari nañu ko xam am na ku ñu tuddee Georges Abad Gallardo nee na moom ci ñoom la bokkoon génn na ca am na yum ci doon wax moom it ku ko topp dinga ko gis franc-maçonnerie du daayira du association du bërëb boo xam ne bii da ngay mën a ñëw dugg fa jëne fa ay information jële fay xibaar mën a génn di ko tasaare xam nañu nu ñu tollaak xam nañu ñan laat loolu moom amul benn firnde ku ko fi indeegum fii te nag boo taxawee ni mi ngi ci biir këru diine yi doomi sëriñ si mi ngi ci jàkka yi di ñuy jiite ñuy ay franc-maçon di ay góor jigéen boo ko xamee boo ko xamul yaa ngi toj réew mi ndax man jàpp ma ne boobu mën naa jàll dafa yomb trop c'est trop facile jullit buy avancer ay propos buy génnee ci gémmiñam dara da koy génneel ay firnde ndax moomaa nangu nag li samam xel di tuuti tuuti yow ngay xeexal diine di xeexal réew mi di xeexal askan wi xam loo xam ne nee nañu day yàqu askan parce que loolu la ñu tuddee franc-maçonnerie day xeex diine yow nga xam ña ca nekk xam seeni tur ba pare noppi ci loolu mënut a nekk xel nanguwul loolu nee ñu biir kër sëriñ si am nay espion mën naa nekk de ndax état dana fonctionner noonu franc-maçonnerie mu ñàkkul am nay fexeem yu mel noonu waaye dafa am loo xam ne di boo koy avancé da nga ciy am lu nuru firnde ndax masalan soo nee espion dafa am ci kër sëriñ si xanaa danga leen a xam xam seeni tur parce que nag boo gisul nit ki mu won la jëfu espion waxi espion mun a goo ne espion la boo demee ba gis jëfi espion gi waxi espion jot na ci nga wax ko ñu génnee ko foofa bala muy passionné waa kër ga wala muy génnee ca kër ga lees wër te génnee loolu laa jàpp ne moo yenu maana waaye diw espion la rek déedéet boobu mënta jàll diw franc-maçon la diw góor jigéen la kilifa diine na dafa jiite mbooloo nga noppi mu jàpp nit ñi di leen yóbbu feneen fudul ci siraatul mustaqim di xajamal seen diine imaam la ci jàkka di jiite ay nit nga xam turam xam këram bàyyi ko mu continuer di jiite ay jullit loolu jàpp ma ne xel nangu na ko li jaadu mooy jullit daal bu xamee luy yàq diine ji amatul sañ-sañu noppi ca bu xamee ku yàq diine ji amatul sañ-sañu noppi ci turam ndax danga war a wax nit ñi nag ñu xam nag dëgg-dëgg da kii lu ko moy danga am responsabilité ci kanamu sa boroom ëllëg loolu mook xam nit ku feebar ci biir kër wala ci biiru quartier ñu ne dañ koy suturaal di ko bay bayal wopp jëdi tasaaroo déedéet loolu xel nangu ko sàcc bu ñu ne wuub sàccey guddi nga ne kàccet sa buntu kër gis ko mu ŋàbb xar wi di daw jàdd ndeyjoor nga ne nit ñi déedéet jàddul ndeyjoor càmmoñ la jàdd topp leen ko loolu xel nangu ko nekk ak nit ci biir quartier muy def yu bon di jaay yàmbaa di def leneen ak leneen nga ne naa noppi dama koy suturaal déedéet loolu lislaam xamul boobu l'islam daal li mu xam mooy franc-maçon la sëriñ la waxal turam taalibe yi xam ci lu ñu ne franc-maçon la imaam la góor jigéen la imaam la nit ñi xam ko xam ci li ñuy nekk loolu mooy dëgg waaye ay junju yu mel noonu bu ko defee xelu nit ñi jaxasu léegi dañuy àgg ba ci xanaa moos ku toog a teg sa sëriñ sax sa xel di ñaar nga naan waaw ndax moom ci ñi ñu junjoon ca la bokk wala mboog nga topp ci ginnaaw imaam naan ah waaw man li may julli ndax xam naa ko ndax mbaadu kii loolu moom jàpp ma ne lu rafet la ci jullit war koo def mbokk yi loolu mooy sunu gis-gis ci tomb boobu ku nekk it sañ gaa gis li dal sam xel asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.